waxtaan wi nga xam ne siq na ko ak abano stress abano stress nee na bu passé animation bi nga xam ne ma ngi koy def maanaam jaaykatu yére la wax la ni nga xam ne moom la dooree mbir mi ak ni mu jafee woon ci moom ak jamono ji fi mu toll ak li nga xam ne moom la xalaat ci ëllëgama nee na doon na jàng waaye kalaat troisième la bàyyee nee na la ko waral mooy football ci boppam moo nekkoon ci boppam yéen kaay gi nee na abba jàppoon na ne dana dem def carrière ci football bi waaye nag na nga xam ne moom la mujjee daal nekk ci wàllum animation gi ak wàllum communiqué ba tey ci biir journal bi moom abba daat nay leeral ana lan moo tax mu nekk animateur rajo waaye tamit ana lan moo tax mu dugg ci wàllum comédie bi lan moo tax muy bëgg di reetaanloo gars yi nee na nag Abba bu nekkee ci seen bi wala mu nekkee ci rajo bi dana ñu ko gis mu xumbu lool waaye nag bu fa jógee maanaam nit la koo xam ne ku dal la ku timide la yéen a gi di réew mi quotidien Abba no stress nee na atum 2017 du ko gaaw fàtte la ko waral bokk na ci nee na yaay ji moo feebaroon ba ñu ko ak jabaram mboolem li nga ci mbir yi Abba wax ci yéen las xëy ci coalition wàllu Sénégal gi nga xam ne ni ki démb ñoom daat nañu koy lancé ñoom Abdoulaye Wade seen feuille de route daat nañu koy wax ni nga xam ne moom la ñu fas yéene waajale élection locale yi ak nan la ñuy def ba gagné communes yu baree bari dal nañu ci kaw Macky Sall ba pare daal di koy dànkafo ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Bamba Fall mi nga xam ne moo bokkoon ci ci coalition Yewwi Askan Wi a kaay bokk yaakaar ak nan la président Macky Sall def ba daal di koy lijjanti ci la yéenekaay gi ñëw yéenekaay gi di laas ci li mu ñëw mooy xeex bi nga xam ne mënut a ñàkk ci diiwaanu Ndakaaru diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ak Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ci yéenekaay gi di enquête nee na nag bannière Sénégal 2035 lay demee ci élection locale yi yéenekaay gi di source xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikh Niass autopsie bi génn na nag la nga xam ne moom la ñu wax ne moo ko mooy jàngoro ji di Covid 19 waaye nag ak feebar bi tamit di diabète ndax nee nañu maanaam yaram wi tàngoon lool bi mu demee hôpital fièvre bi toll na ci 42 degré lu jëm ci wàllum suukar si 3 grammes yéen a kaay gi de Les bu ñu waxantee dëgg li nga xam ne mooy autopsie bi maanaam seetal na police su Sénégal ba ñu seet weccee yéen a kaay gi de L'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu sa kaso bu Mbàkke jàppante bu méttee métti moo fa amoon am na juróom benn ci ay manton yoo xam ne am nañu fa ay gaañu gaañu am na ci 4 grave yéen a kaay gi ñu xibaar naan ñu bi nga xam ne doon nañu ko amal ndaw ñi ñoo ko fekke woon bàyyi ko ci